dalee nag jàmm lèpre di ab feebar boo xamante ni wàññeeku na bu baax a baax fii ci Sénégal donte am na yenn ci ay cas yu ñuy nemmeeku ci jamono goo xamante ni nag bëgg nañu fi lekk atum 2030 bu ñu gisati lèpre ci dëkk bi wala sax mu wàññeeku bu baax a baax tax ba daawoo di sàkku nag ñuy teel a def dépistage bi boole ko ak traitement bu mucc ayib noonee sax ñoom ñooy xam ne dinañu gën a yokk yeete gi ci dëkk bi yépp waaye rawatina ci diwaan yi nga xamante ni dafa nekk ci booru frontière yi Mahamad Cissé di directeur bu ONG DHW Sénégal. nit ñi tànk ñu ngi am ay laago mu jóge ci feebar bi ak lu ñu communiqué communiqué communiqué nit ñi dañ leen dinañ leen boddi parce que nit ñi dañoo ragal gis koo xamante ni bii yi dafa dagg yi dafa dafa am na mu mel wala kanam gi dafa am na mu mel ca loolu li ko mën a régler moom mooy fexe ba nit ñi teel a jóg dem fi ñu war a dem ñu wax leen nu ñu war a mën a def parce que foo xamante ne bi léegi traitement bi c'est gratuit foo dem ci poste de santé yi fekk ko fa personnel de santé bi ñu bëree bari formé nañ leen même ci hôpitaux yi mais lan moo tax pour le moment ñu am jafe-jafe ba lu ci gën a bëri ci dispositif bi léeg-léeg ñuy dépister ñoo xamante bi biñ leen di dépister fekk na ñu nekk déjà ay personnes handicapées ca loolu moom tant que mu ngi am lu ñu sensibiliser sensibiliser wala wax wax wax wax wax pour fexe ba nit ñi accepter maladie bi du nekk loo xamante ni bi dina yomb donc je crois que actuellement vraiment li ñu war a mën a def daal moom mooy nit ñëpp booloo ñu def une de large mobilisation sociale impliqué les canaux yi nga xamante ni bii war nañ leen mën a impliqué muy niveau communautaire muy au niveau institutionnel waaw pour que daal nit ñi a mën bi bu ñu gisee loo xamante ni bii dafa junjul lu nekk lu loolu la ñu dem ñu war a dem bu ñu fi ñu war a dem fekk fa ñoo xamante ni bii am nañ aussi les compétences pour ñu mën leen mën a traiter de façon qualitative ñu jox leen seen garab comme c'est gratuit de façon ni leen ko war a joxee ñu faju ñu wër ñu mën a insérer wu sans mu am problème loolu daal xam naa ne moom mooy li nga xamante bi moom la Sénégal war a jublu ca daaw mu ngi koy commencé di ko ci accompagner ci du mu waxee léegi ak euh, jumtukaay yi nga xamante ne bi yëpp tey buñ ko defee ci système bi dana mën a tax fexe ba fi nga xamante ne bi lépp am na fa transmission bu forte ñu mën koo wàññi ba kenn dootul ko am ci ci feebar waaw mais di nga fekk communication bi moom ñaar rek la mën a def mooy fexe ba ñi nga xamante ne bi dañ leen a boddi ñu fexe ba duñ leen boddi ñi nga xamante ne bi dañoo xamul ñu war leen a xamal pour ñu xam ñu xam également que ne bu fekkee ne lèpre bi wax nañ ko nit ñi ba ñu xam nan lay génn ci yaram ak nan lay manifesté woo bu ko defee ku ko ci gis nga dem fi nga war a dem ci système de santé bi personnel de santé bi am nañu formé nañu leen garab yi am na dafa gratuit kenn du ko jaay bu ko defee je crois que lool daal la ñu wax ni moom lañ yaakaar ne bu ñu ñëpp defee noonu lépp bi mën na fi jógee en tout cas d'ici d'ici 2030 fii lañ koy ndarkeppee dig daje ci beneen numéro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 Bonjour. La lèpre régresse au Sénégal malgré quelques cas. Il urge cependant de relever le défi de zéro lèpre à l'horizon 2030. La DAO préconise un dépistage précoce mais surtout un traitement de qualité, d'où le souhait d'accroître la sensibilisation dans les zones frontalières. Mohamed Sissé, directeur de l'ONG DHW Sénégal. La lèpre elle est une maladie très stigmatisante euh, à cause bien sûr des difformités infirmité, mais également des incapacités et des invalidités euh, qu'elle crée. C'est pourquoi nous nous avons estimé que pour régler la question de façon définitive, il faudrait que nous arrivions à faire en sorte que le dépistage soit précoce au niveau de la maladie et que les populations puissent avoir accès à un traitement de qualité et avoir également une réinsertion qui est aisée. Le grand problème aujourd'hui de la lutte contre la lèpre, c'est le dépistage tardif. Parce que quand les gens sont dépistés tardivement, ils vivent avec des mutilations, avec des réactions lépreuses et dont les conséquences sont non seulement la stigmatisation, mais le fait que du point de vue des enfants qui sont atteints et des filles. Il y a la question liée à l'école, il y a la question liée à la formation professionnelle, il y a la question liée à l'autonomisation financière, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la stratégie la plus plausible, c'est que le Sénégal est dans l'objectif de zéro lèpre pour la lèpre d'ici 2030 et nous sommes en train effectivement d'introduire ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle pour vraiment arriver à ce que le diagnostic de la lèpre puisse être fait de façon qualitative, mais également dans les milieux les plus euh, enclavés. Et je crois que si aujourd'hui on arrive à valider cette application qui s'appelle BelPro et que nous l'introduisions dans le système de santé et même dans le système décentralisé au niveau communautaire, nous estimons qu'on d'ici avec la prophylaxie que le Sénégal est en de développer, avec la de l'objectif de cette réalisation. La stratégie que nous développons, c'est la sensibilisation au niveau des, des communautés. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place des programmes de communication sociale. Donc il faut aller rencontrer les familles, développer des stratégies avancées, faire également des VAD, la presse qui peuvent contribuer également à sensibiliser les populations. Donc il y a tout un paquet de services, en tout cas du point de vue population, d'une acceptation de la maladie, mais également d'un meilleur euh, traitement et d'une meilleure réinsertion des populations. Effectivement, la communication, la sensibilisation, en tout cas, c'est également un des vents du programme et sur lesquels nous pensons que si on veut aller en tout cas vers l'objectif zéro lèpre d'ici il va falloir développer toute une gamme de communication. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris demain pour un nouveau numéro.